defee kay fine amul problème waaye mhm. ñu xam ne sa xaalis réew mi la ko defee xaalis boobu kan moo ko dugal yow yaa ko duggal da nga fay ma fay borom businessman bi fay nappkat yi jën di fay da puus puus bi fay ticket ak yooyu xaalis boobu mooy xaalis réew mi si dee liggéeyal yoon indi la si hôpital indi la si school indi la si kuréel ak yu mel noonu mhm. kon nit yi war nañoo xam lii digga la ak knowledge ku def lu baax war ngeen ko ak knowledge man ku def lu baax man dama koy ak knowledge man It doesn't matter whether we are in the same party or not. I will acknowledge that. parce que for far too long tey su fekkee nga xam ne xaalis réew mi am na foo war a dugal doo ko fa daan dugal léegi ñu gis ne change nga sa xel di ko dugal fi nga ko war a dugal ah that calls for acknowledgement and I will acknowledge you for that man su loolu amee dinaa ko def mm-hmm. waaye tey nit yi amuñ fit di taxaw di wax president bi ne li ak li ak li ak li len manqué la président bi a ah, adama baro bi nga dewe ci meeting ba nga toj caasi meeting bi nga invite li <laughs> nga dem wa li bu ko man dama gëm ni lima wara wax man xamna am am waaye sa wax bi bu ko waxe naka la ko sen wa dika jele won afta si buñ be ne <coughs> pare ki ne kii ah, li nga yàlla xam ne yalla xamna ne mo waxe wax bobu non ñu bari ñi ne man ma leen xëy development billaay loolu laa laa wax nii moo tax ma ne leen anga anga ñu bari. waaye man gëm naa sa wax boobu because yow da nga taxaw. wax ne eh, comme yaa ngi doon jooytu sa waa dëkk luñ amut loo nga jooy loolu moo nekk si si vidéo bi oh. eh, sa waa dëkk amuñ lii yoon yu baax wax wax wax nga tudda yooyu noonu after ñoom bu ñëwee ñu toon upside down mm. affaire si mm. léegi sax adika merala si mm. because ñu ne yaa leen xañ oh, Omar Ceesay invite uñ ko si meeting tey um, invite uñ ko fa lu war a ta te war nga faa ñëw because yaa yaa at time yaay seen uh, MP yaa war a ñëw represent bi normalement uh, uh, matawut ban parti nga jógee war ngaa nekk si meeting boobu noonu waaye comme ni nga ko waxee di mindset of the people moo tax ma ne na comme ñu ñu def more sensitization on this yéen ñoom ne naa politicians si media of course am nañ rôle bu mag because dañ ko mm-hmm. dañ ko dee def every time mm-hmm. uh, meet the people too xaalis si mi la ñoo jël taxpayers money la ñoo jël ñu use ko si kon gox bu nekk su président bi ñëwee war ngaa génn wax sax soxla wax lu la fa naka lan ngeen manqué ak lan ngeen soxla waaye ting si du fa dee demee noonu. du demee noonu xaaral ma wax la sax nag loo si xamut gis nga benn benn yu nga xam ne sax dañ leen dee jël ñu wax wallahi ñu si bari si ñoom den laa gaay njëkk den laa koon a njëkk mu wax la li nga war a wax. I ah, am speaking from experience. Ah, ah, <laughs> before the meeting. waaw. I'm telling you I'm I'm speaking out of experience. man sax su ma wax boobu noonu. wallahi kon Now, you know what you know you are very critical critical to the government. you know you always lambast the government the president and the like but here you can be mindful. Oh, yes. comme loolu daf fee am si meeting wallaahi ñu koona la saa daa rek la noo woon dañu gis ni dinu man sax wax leen ma loolu ma ne leen su fekkee yéen yéen ma wara a wax man li ma war a wax fii kon jarutoo ñaamina is di ma sànni karta su fekkee yéen ma gën a xam problème yi wala li ma war a waxal ñaamina <laughs> kon jaru man ma nekk député Di laa leen tontu ma ne leen ba ma wax ba pare ngeen soog a xam ndax li ma wax correct na wala correctul Di laa leen tontu dama lay xamal ne bari na ñu nga xam ne ñu ngi wax da leen dee wax lu ñu war a wax si mitin yooyu. wallahi du caaxaan. su fekkee nga xam ne sax. du tey président moo taxaw na la lii ak lii nga war a wax comité bi nga xam ne tey moo represent GDC naka NPP foofu noonu. Mhm. dañ dee am a prior meeting na la diw ak diw ak diw ñoo wax which is fine yes you can prepare your members before the day fine waaye dañ leen dee guide as to what they have to say in that platform man maa la wax lii. waxee seen sago de waxuñu leen ne waxuñu bu ko wax waxuñ seen xalaat moo tax lu si bari tagg rek Gambie kañ laa dem laaj ko président bi ok euh, ñu ñëw si agriculture waaye li ma si gën a naxari mooy mhm. euh, dafa am am solo li ma bëgg a euh, waxtaane fii mhm. si wàllu tool bii nii mhm. te mu doon daw yaram dama bëgg a nit ñi déglu ma xel nekku ne yëfi iñaan moo ko moo tax man ko ku am gan ku nekk teraw ko aayut soo ko amee waaye teral nit ba loolu si amul la njariñ mhm. nangu nga loolu. teral gan waaye teral nit ba loolu la njëriñ. ndi ngir bëgg tur. nga ñeete waaye ñeete boo xam ne da nga see doxee loolu. Mhm. man ne dugg bugguma ñeete boobu. Mhm. mais da ngay gis ñoo xam ne président bi tey si jóg too tey si exemple mu war a dem ñaami ne is dëkk bu mu war a dem gars yi dañoo ngacca seen kees yëpp yàkka seen kees yëpp suusu yu ñu am. Eh, compagnie ñu am eh, liñ fa mënta am tool ñu am di tegloo waa dëkk bi yii yëpp dafay am ñu ne lan dañoo teral président bi wallahi am speaking from experience dama ko gis dëkk yoo xam ne du ko may ay di yaakaar loo xam ne mhm. suñ ko defee ah, eh. fogloo tamit comme sànq luñ leen dee gëmloo la président bi su ñëwee soo ko mayee gerte dina la jox lu ëppa loolu soo ko mayee dugub Eh, dina la may. waaw ni la ni la expliqué nag nii man dama am la suma area dama la ko daan wax nga nit yi den war a bàyyi soo waxee ñu waxi opposition la bugguloo président bi lan bañ président bi the president is my president whether I like it or not <laughs> but I should guide you I am your representative man xam naa ne du ma demande ñaame na leen bu leen tegal président bi mu ngi ñëw su waaye su waree ñëw suñu dëkkee ñun non xaaral rek. but loolu is your responsibility. non wax naa ko non xaaral rek wax naa ko ba sonn wax naa ko ba sonn na waxtaan ak sa yi ak yooyu. waaw naka lañ la déglu loo euh, buggee di la déglu always seen connection mu ngi baax war nga naa gën a mën a sensitiser. wax naa wax naa yéen leen li mit the people toola président dafa ñëw pour waxaat leen yéen seen sox ngeen wax seen soxla yi. loo leen soxla mu defar leen ko waaye nekkut yéen ngeen génnee seen alal di ko jox président. exactly lii dama ko wax na ba soona de waxuma la damay bàyyi wax bi de waaye toog buy ñëw nii lu ma si mun duwul ne su ma ne la du damay delluwaat di wax waa ñaami ne lii ak lii miinum ne du ma ak ñoom dinaa wax ak ñeneen si téléphone danaa wax ak ñeneen si audio ak plateforme yu mel ni si rajo bi ak si télé su ma paree fii maa ngi dem si rajo bi am naa interview foofu and I know this will form part of waaye li may wax mooy dafa daw yaram yow xaalis bi nga jox président bi nga dépasse ko na président bi jógal da nga war a jóg jógal am xaalis bi jógal nga dem wër réew mi nga fekka suñu président bi jël dépasse boobu ñëw ba pare yow dépasse boobu nga jël dem di jël sa kees yi sa susu yi sa li nga sa tool bi li nga am nga jaay ko waa dëkk bi di teg ñii da si xoolante bot ñii da si euh, euh, xasante ñii da si sànniwante kàddu yi yëpp si dee am parce que dañuy tegloo ñu nga xam ne wala ñu impose teg boo xam ne si yow ne borom kër bu nekk two hundred for instance wala borom kër bu nekk thousand dalasi wala borom kër bu nekk saako mala yu mel loolu daf si dee am people no xaaral ma ñëw people know what I am talking about mm-hmm. si kan leen ko yóbbu den ko yóbbu si ñu nga xam ne ñooy comité NPP lan leen koy doyee ñu ne président bi leen koy terale su keroog bis ba dama ne président bi benn péppi maalo bi nga xam ne la war a lekk foofu wala képp ki nga xam ne dajale na la foofu loolu dépense bi jox neen ko ko néegi député yi ñoo ko ko jox lan moo tax nga war a tegal président bi man dama wax naa ko gars man la su fekkee Mama Kandeh honorable Kandeh moo nekk président sax warul leen pour ngeen def loolu moo tax ma njëkkee ne ku am gan soo ko mënee teral fine waaye teral boo xam ne danga see loolu dama si gis ñoo xam ne dañ ko defee pare réccu ko ndaxte ni ngi si doon yaakaar loo xam ne amut. parce que liñ leen gomloo la liñ leen gomloo la. soo li dafa war a génn soo maa ngi ñaax askan mhm. président bi mu ngi jogaat surtout ñi nga xam ne ñoo nekk Ñaamina East ma ne président bi mu ngi jokk luwaay réew mi moo ko may doole bi pour mu jokk mu jog dem war réew mi déglu seen problème yi waaye mu wax leen tam lan la leen amal problème yi gerte bi mu ngi nii. fajoogun maa ngi ñëw léegi nag. su ko defee dépense boo xam ne maalo boo xam ne lekkee ngeen ko foofu dox boo xam ne naan ngeen ko foofu yàpp boo xam ne lekkee ngeen ko foofu ngeen xam ne si kees réew mi la joxe dépense bi den ko ko jox waaye si ngeen ngàccee seen kees ngeen yekka ko ngeen ne ñu dem withdraw lu ñu am suñ suñ suñ association bi mooy compine compine yooyu yaay compine <laughs> yooyu seen compine compine yooyu ñeena ñi di dem di tegloo ay nit mun nañu mm. ko bàyyi su paree ñu koy réccu am na ñu nga xam ne jamono yaaya jàmme soo génnee ten dalasi soo su ñëwee nga am hundred mais jamono bii loolu dafa passé loolu amul kon ñun itam na la ñu wecceeku na la ñu wecceeku teg bii na la ñu ko bàyyi du daf ñu war ah, dépasse réew mi Omar Adama Barrow da nga bëgg a wax ne dafa nay du joxe ah <laughs> jamono yaaya jàmme soo joxee tan am tawsan waaye bii dafa uute yaa wax de bu ma ne yow yaa wax loolu kon nañ baay loolu loolu is very important is a very powerful message bi nga xamante ne ñu si kaw gi war nañ see bàyyi bu baax a baax a baax ndaxte yéen ay sax comité comité yi ñoo dee indi njuuj njaaj ji waaye foog ñu create awareness sensitize leen ñu gën a xam lan lañ war a def loolu tamit waa dëkk gi ndawi dëkk bi ñoo si war a jóg ñi nga xam ne jàng nañ ñu nga xam ne ay wayaa ne ñu create awareness ak maire yi wax ak paa yi su ko defee yooyu du